di nuyu bu baax ñi fi toog di sant di gërëm di ci jiital nag monsieur le ministre comme ni ma ko waxee monsieur le ministre tey dafa jàppoon new fi woon sax mais dafa dagg soxlaam pour ñëw teewe bés bi xëy na cër la pour ñun Galcoris Banque mais dafay wontre surtout attachement am ci finance islamique ak lu ko jëmale kanam ci dëkk bi donc ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko masawu coono sëñ Mamboor duñ ko présenté ku nekk bërki dem baa ngi waxtaan ak euh, madame Oulimata Diop la haute autorité la DG de la haute autorité di wax ñuy waxtaan ba yegg ci Mamboor liggéey bu rëy bu muy def ci yooyu à travers son groupe Al Azhar ñu ngi koy remercier bu baax te di ko wax lu mu ñaan doyul parce que yan bi diis na yoon sore na waaye xam na ne ak ñaan yi euh, ak liggéey bi yëf yi dana jëm kanam di gërëm bu baax sunu conseil euh, de conformité li tax ñu leen di beral gërëm c'est que xam nañ ni lii liggéey lay doon parce que finance islamique waaw xam nañ ko mais bareegul torop surtout que léegi dafa am cadre réglementaire bu bees ça veut dire que daan leen solicité bu baax a baax te ñoom dañu pare pour jàppale ñu ku ci nekk ci domaine finance xam nga ci lu takk am nga ci lu am am nga ci xam-xam bu bu bu bu wér te gëm naa ni loolu suñu intérêt la ñun Coris Banque mais suñu intérêt la ñun marché sénégalais bi et au-delà le marché africain di gërëm gaa AISD yi ñuy jàppale ba ñu commencé projet bi ba tey di saytu ndax lépp luñ ciy def dëppoo naag charia di xool ndax conformité bi ñuy wax am na ci dinu jàppale également ci ay ligne de financement bi ci mucc mooy bu Mali bi nu lancé bërki démb ay silli jërëjëf jazakumullah ñu gërëm bu baax imaam yi kilifa yi fi toog yépp di ci jiital euh, wax naa ko Maam mais di gërëm ñépp bàyyiwuñu kenn di ñaan yàlla nag yàlla jàppale nu parce que yàlla rek moo mën loolu li ñuy sumb am nañ ci yéene yéene biñ ci am mooy taxawal produit islamique finance islamique bu wér bu laalul dara mooy sunu yéene te danu jël engagement boobu ku nu gis nag sax à la limite ñu ci xaw a kii nañu rappeler à l'ordre mais sunu yéene ak sunu pas-pas mooy taxawal finance islamique bu wér parce xam nañ ni population bi dañ ko soxla mais système bancaire bi daf ko soxla parce que finance islamique montré na ni ni capacité de résistance am bu choc amee donc loolu mooy suñu yéene di ñaan yàlla ñëpp jàpp ci di leen gërëm di leen sant di leen déwénal